canta ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo internet bi di net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy doore kaddu yi nga xamante ne rek député activiste bi di Guy Marius Sagna la dina koy ne na nag ji lépp lu dal Bassirou Diomaye Faye rek ma ngay jël responsable comme Macky Sall ak nguuram mi nga xamante ne rek la dinañ koy yër yóbbu ko ca ndungu siin façon boo xamante ne rek façon bu arbitraire la gannaaw bu mu gisee ne rek boobule jàpp nag teguñu ko fenn foo dëggu ñu fàttali leen na ni ki ay weer rek kii di Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko jël a làq ko jant bi kii di Guy Marius Sagna nag ma nga daal di yëkkati ay kàddoom nag di sàkku ñu libéré ko ci nu mu gën a gaawee moom Bassirou Diomaye Faye ndax nag jot na mu daal di préparé lii di campagne électorale bi fas yi na nag daan président Macky ci élection yi nga xamante rek moom nekk victoire fal ndax nag nee kii di Sonko mooy Diomaye Diomaye moom mooy Sonko di kàddu yi nga xamante rek kii di Guy Marius Sagna di nag koy yëkkati ba tey bu ñu jógee ko foofu nag dañuy di Ndiaye daal dina koy yëkkati moom nag la mu daal di xamle moo di tànneef bi nga xamante ne rek nañ ko dossier ñaal coowal bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante kii di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang nag mbir mu nu mel xel nanguwul ko benn yoon waaye nag dañ ko utiliser rek pour éliminer kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi nga xamante ne rek moom la naroon a bokk te jamono ji nag xam nañu askanu Sénégal ci seen jëm bopp daal dinañuy doy sëkk rek ci seen nguur waaye histoire bu nu mel nag dinañu ko attewaat di kàddu kii di El Hadj Malick Ndiaye mu daal di ci yokk ne

jongante mu nekk motif boo xamante ne rek motif bu ndaw la ndax jàpp ne daan bi nga xamante daan nañ ko juróom benn weer kaso ànd ak sursis nekkul lenn loo xamante rek waroon a tey këpp ñu ngi koy xaar nekk na mbir moo xamante rek loo xamante kenn xamul ab datam waaye nag ak lépp lu ci munti doon rek jamono ji nag dinañ def seen maintien bien waaye nag nee na égalité bi nga xamante ne rek mu ngi koy mu ngi koy sàkku jamono ji ci jongante présidentielle yi kenn ku ci nekk rek nañ la may sa chance waaye kii di président Bassirou Diomaye Faye nekk candidat opposition bi nag jot na rek ñu daal di koy bàyyi nag ci nu mu gën a gaawee bàyyi boo xamante ne rek du ànd ak benn condition di kàddu kii di El Hadj Malick Ndiaye mu daal di ci yokk Diomaye mooy Sonko Diomaye président Diomaye mooy Sonko sunu élection 2024 président Sonko président 2024 focus 2024 Sénégal